dal leen ak jàmm ami site internet net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek kàddu yi nga xamante ne kii di Pape Alé Niang dina koy yëkkati di xam ne rek mooy rek obstacle bi nga xamante ne rek kii di Ousmane Sonko koy dund bu fekkee ne rek état bu Sénégal dafa lànk ne rek bokk ci jongante présidentielle ñu dëtmal ci atum 2024 taarixu politique sénégalais jamono ji nag ab théâtre dong rek lay nirool ndax ki nga xamante ne nag moom mooy opposant bi di Ousmane Sonko ginnaaw nag participation élection yu njëkk yi nag ni ki élection yi ñu ma ci atuma 2024 nag am na ab décision boo xamante ne rek daal dinañ koy jël que ne résumé Macky Sall dafa daal di bloqué ki nga xamante ne nag mooy Ousmane Sonko ngir mu bañ a doon candidat ci élection présidentielle yi ñu doon ma ci atuma mbir mu nu mel nag amoon na parrainage ni ki 2018 waaye nag boobu le parrainage nag lañ ci jublu woon mooy renforcer bu baax lépp loo xamante rek fichier électoral bi nag daal dina koy ñeel waaye nag boo xamante ne rek la buy dem nag ci élection présidentielle yi waaye nag ci mbir mu nu mel kii di Ousmane Sonko jamono ji nag boobu kaam nag njaaxle dëgg rek moom moo ci am parce que kii di état bu Sénégal jàpp ne nag légitimul nag benn yoon maanaam daal xel mënut nangu rek mu nekk candidat ci élection présidentielle yi ñu doon bu fekkee rek dañoo def ab application boo xamante ne rek dafay méngale ki nga xamante ne nag moom mooy décision bi ba tey rek la muy daal di xam ne ci boppu le mbir nag parrainage bi bu fekkee utiliser nañ ko rek comme instrument politique waaye nag dañ ko nar a jël rek utiliser ko jaay ko doole ba bañ kii di Ousmane Sonko rek mu mën a bokk nag ci élection yi bu ñu fàttali ko kii di Ousmane Sonko moom moo nekk candidat favori bu opposition bi ginnaaw soutien bi nga xamante rek am na ko nag ci population bi rawatina nag refus bi nga tere bi nga ne rek tere nañ ko ngir mu amal ab parrainage am mbir mu nu mel nag dafay wundu na rek dañ ko bëgg a xeñ lépp loo xamante ne rek àq la ak yelleefam waaye nag xeñ askan ko ci bopp réew mi bu fekkee rek démocratie nag jamono ji nag dafa daal di taxaw kon nag nañu bàyyi kii di Ousmane Sonko rek décision bi nga xamante ne rek moom la état bu Sénégal jël pour bloquer ko nag mu bañ a bokk ci élection présidentielle yi ñu doon mal faw rek mu daal di ci teggi tànkam waaye nag kaa bu nu mel rek bu ñu ko xoolee rek ba xoolaat ko système mu parrainage yi naam nag li nga xamante ne nag moom mooy empêché ko nag ngir mu nekk candidat ci élection présidentielle nag loolu moo tax rek ñuy def mbir mu ñoo appliqué naka boo xamante ne manière boo xamante ne rek day am bañ a am xajji ak senn jëmale ko nag ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo yor boobulee parrainage waaye nag bu ñu utiliser mukk seeni doole nag ba jël li nga xamante ne nag moom mooy illégitime maanaam daal te ko ak ak yelleefam rek ngir mu bañ a bokk ci jongante présidentielle yi ñu dënmal ba tey rek moom Pape Alé Niang nag la mu daal di xam ne rek mooy parrainage bi nga xamante ne nag Ousmane Sonko nar nañ koo amal nañ ko renforcer sëkk waaye lépp nag demono ji ci njax xeex la rek la tegu ndax état ak démocratie Sénégal jamono ji nag kenn xamul rek lu mu doon waaye daal li woor ba woor rek moom Pape Alé Niang la mu daal di xam na rek moo dina question bi nga xamante ne établir nañ ko rek pour def li nga xamante ne nag moom mooy boobu lee parenage bu nekkee violé wuñu ko maanaam daal salfaañe wuñu ko ba noppi rek ak droit yi nga xamante ne nag moom la citoyen yi am tànn ku leen neex ngir mu diriger leen kon bu boobaa rek mel na ne nag démocratie jamono ji nag amul ci biir réew waaye bu ñu ñu bëggee boobule démocratie am rek faw ñu bàyyi kii di Ousmane Sonko mu bokk ci jongante présidentielle yi ndax kat tànn nañ ko tànn boo xamante ne rek askan wi nag ñor nañ ko ñor na leen bu baax a baax rawatina nag système bu nga xamante ne rek moom lay indi ci langum politique bi mbir mu nu mel nag dinañ ci taxaw seen ként lay kàtt moom Pape Alé Niang la mu daal di xam ne rek bu fekkee pare nañ nag pour assurer waat bu baax avenir bu politique kon nag nañu bàyyi kii di Ousmane Sonko élection présidentielle yi du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi.